xam ne tey su may compté lu mën a jege ñaari junni ndongo yoo xam ne nguur gi moo leen fi indi ji leen en charge aussi ñu ngi fi jàng diggante boobu it am na yeneen nag jàng yeneen yoo xam ne def nañ ko ca Toulouse si mbirum njàngale yi gën a ak thèse doctorat yoo xam ne def nañ ko euh, ci université Blaise Pascal bu Clermont-Ferrand yàlla it may ñu ay ndombo tànk yoo xam ni ñu ngi ñuy boole ci kuréel yu bare bari ci àddina bi ak ci fii ci Sénégal

boobu ba léegi ñu def ay jéego yu bëri yoo xam ne ci ñëwaat ci biir waxtaan bi par la confiance du ministre aussi et du président Macky Sall biñ euh, ma nommé ma liggéey ci mbirum concertation nationale pour avenir de l' enseignement supérieur ci juróom-ñaari membre yi nga xam ne ñoo xaatim lépp lu jëm ci njàngamu kawe ci Sénégal ci la bokk naa ci ñi ñu tànnoon ba boole leen ci ci yaakaar nañ ne aussi liggéey nañ ci liggéey bu rafet ba tey ni enseignement bi jaxasoo woon dans les années 2000 gis nañu ko léegi wax dëgg yàlla jafe-jafe yi nit ñëpp jeex na mais en tout cas coow li xaw na la tëtal mm-hmm. ba nga xam ne léegi gis nañu daal jéego yu bari ak prospective yu bari yoo xam ne loolu lu ñu tegoon la ànd ceeg Souleymane si Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne loolu weesoo euh, aussi ñu nommé ma ma nekk membre conseil d' administration bu autorité nationale d' assurance qualité bu Sénégal loolu it mooy kuréel gi mag yi nga xam ni dañ koo samp muy saytu lépp lu jëm ci ñàkk mu kawe Sénégal di xool wala baax na ma ma bokk ci fukki nit ñi nga xamné ne ñoom lañ tan jox lay ñu nekk ci conseil d'administration administration bi di ko di ko doxal and ci professeur Papa Guèye Papa Guèye ak yeneen professeur yo xamné ne lañ tànn ci Sénégal loolu ak ci ciy sant président ci sant Macky di ci sant it Mary Teuw ci confiance bi nga xam ne ko na ko amoon ko maintenant nak ci le plan international bi ma la ko waxee léegi je fais partie du du laboratoire de recherche bu tudd atte nekk fee ci Blaise Pascal di fa def ay ay recherche yu jëm ci mbirum njàng mbirum njàngale mbirum employabilité des jeunes nous avons fait yeneen yoo xam ne ñëpp ñaan ñu koy aussi samay père ci au niveau africain di naan conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur nous avons fait des na kuréel bu ñuy des établissements privés euh, de l'Afrique de l'Ouest di espace CAMES man man nañ li ñu takkal ne ma maay commissaire chargé de la qualité et de l' accréditation boobu ñoo ma ko defee ca Gabon may koy doxal ba léegi ba ba ci démb maa ngi woon ci CAMES fee ca Yaoundé nga xam ne ñu demoon ci conseil des ministres bi 18 ministres ñoo fa nekkoon ah foofu it am na raaye yoo xam ni takkal nañ ma ko fa ne je suis chevalier dans l' ordre international des palmes académiques du CAMES loolu nga xam naa ñu nekkul di njàng mi kayo xam ni communal lu xaw am maanaam daal ci mbirum njàng kare gi wane ne sa sa sa njàmbaar ak sa liggéey ci mbirum njàng Sénégal yi tappal na ma raaya bi ñu tuddee chevalier de l'ordre national du mérite loolu depuis deux ans jox nañ ma raaya bu di wane ne maa koy jëmale waa ITECOM bi ak ñi ma àndal may wax daal ci xaw a tënk rapidement su ma tëbee yenn yenn yenn étapes yi waaw xam nga pétrole ak gaz moom euh, day loo xam ni Sénégal bu ñu ci yàggee formé sax yàgg na naa keroog maa ngi laajte sax bi ñu dajee ne xanaa lépp dafa mel daal dafa ñëw ba heure bii rek lépp feeñandoo maa ngi koy laajte ci biir saal bi nañ ma leeral loolu xanaa fan nañ ci nekkoon mais loolu lépp wax rek xëy na li ma ci bëggoon ñu tontu ko mooy njàng ak njàngale bu pétrole ak recherche dañ ko war a gën a dañ ko war a gën a rafetal gën ko xóotal que day loo xam ni dafa lépp luy miin. loolu it suñu institut bi nga xam ne moom bañ ko sampee ba léegi ñëpp xam nañ xarañam liggéeyam seen défi bu Sénégal bu sa am rek suñu institut institut technique ITECOM ak ñu ma ëmb ci CPS joxe nañ ci seen xalaat ak seen engagement bi ñu tollee nga xam ne Sénégal économie du savoir la woon économie euh, tertiaire bi moo woon croissance bi lu mel ne ay Sonatel lu mel ne ay port ak affaire yooyu dans les années 2000 loolu moo porté woon croissance suñu école yi jogon nañ ubi ay jang yo xamne bu njëkk France ak la am ay ay yo xamne jang yu kawé ba tay xale yo ci doon gën yépp amu ci kenn ko xamne tay en tout cas ci ité comme ko am master ah bo xamne ko tok ak at te amul liggéey bo xamne ya. légui nak léegi nag pétrole na ak domaine bi nga xamne science technologie ingénierie mathématiques ak yeneen yi nga xamne ñoo jëm ci xarit yooyu tuddee ko science système yoyu dafa nek li nga xam ne bu ñu jàngatee jang bu ka développement Sénégal lolu mo war a mun yore croissance Sénégal ak Afrique yëpp loolu la boobu ba légui ñu toog ñu c'est comme samp na déjà depuis longtemps ben filière bu énergétique mais énergétique dafa ëmb lépp lu jëm sax ci ay pétrole yooyu yëpp légui lolu ñu koy doxal bàyyi gabonais ñëpp ñu fi jàng ñu tuddee ko énergie renouvelable xéna na boobu génn nañ ci pétrole renouvelable mooy tey solaire ay affaires yeneen hydraulique yi yeeg yooyu tey am nañ fi ay professeurs yu xarit yu mel ni Grégoire Sissoko ay ñoom ñeneen ak ñeneen ñoo ne dem jëli yi ñu samp fi benn laboratoire boo xam ne ci loolu ne liggéey ba tey xale yaa ngi ciy jàng première formation bi ren lay war a génn ñi ci ëpp nag malheureusement waa bitim réew ñoo ci ëpp nag macha allah mais waa Sénégal tamit am nañ ci nekk quelques xale bon pétrole bi dafa am ñaari parti dafa am benn bi nga xam ni dañ ko tuddee amont pétrolier benn mi tuddee ko l'aval pétrolier ci amont pétrolier bi moom boobu mooy recherche bi xaalis recherche yeeg yooyu boobu duñ jàpp ni mun nañ ci formé waat boobu dafa am formation yoo xam ne université yu mag yi dañ ko war a jël en charge parce que loolu moo indi coow li yëpp li naan dañoo nax ak bi xam nga su fekkee sa xam-xam soriwul sa am-am bariwul loo coow coow yi coow li yëpp dañoo nax mooy dañoo amul suñuy xaalisu bopp ak xam-xam yu mënal suñu bopp ba nga xam ne dañ ko mën a gasal suñu bopp wuti xaalis def ko kon boobu nax mënu cee am mais nax bi ñuy wax ni yëpp mooy nekk tey dañoo indil xaalis. indil ñu xam-xam ñun amuñu sax moyen contrôler ba xam lañ ñuy wax noonu la wala loolu former nit ñi ah ci amont bi mooy li nga xam ne mooy tax ñu def ay recherche amoon nañ ay ingénieur tele leen war a jël xale yu ndaw yu xarañ dugal leen ci suñu formation yi fii ci Sénégal même ci formateur yoo xam ne yóbbu na rapidement ñu dem ci école yi gën a mag ci àdduna bi jël fa ay xam-xam wala ñu woo ay professeurs yu ñëw samp école yi fii gën leen a

Andichana liga war a njëkk a def mooy sant sa borom yàlla nag su la mayee wërsëg wala am lu mu la jàppale soo bëggee sa réew mën ngaa gestu sa réew xam am am yamul te li ñu am it Sénégal moo ñu ko jox Sénégal moo ñu formé kenn ku ci nekk ci li la Sénégal formé war nga ci jël soo amee nag lu ci aw bi ñëpp ko mën su amee lu ci mën a mais gesto c'est un bon un avant gesto c'est un décolo mais Gaston aussi n'est pas n'importe que c'est l'Europe qui 50 ans l'Olna est venu au Légui il y a des partis de qui nous allions ben ne bi moi social ben développement ben ne politique parce que faire de la politique aussi c'est appuyer le, développement et la lutte contre la pauvreté en tout cas nous dans la société côté bon nous commençons avec déjà pour les biens commençons les les le chaos parce que c'est une discussion mais de tout le temps j'ai essayé d'appuyer cela a été comme beaucoup

école bu ca CAMES ak conseil africain malgache pour l'enseignement enseignement supérieur nekk la première école bu am l' de ces diplômes accrédités par le CAMES le premier diplôme de banque de finance assurance qui est am ñu accrédité logistique aussi ITECOM moo ko njëkk a am moom école bu pour ne pas faire de la publicité ñoo ko àndandoo def ko ah dimbale boobu nag ci ñaata ñu ko ñu ko commencé après ñu may ay bourses dimbale ay nit ñoo xam dañoo feebar mais loolu yaakaar naa ñu bari ñu koy def xanaa parce que ni ko nekkoon la ko gën a yaatal. ah bi ñu demee ba mu yàgg nag ñu ne léegi euh, euh, ñu xool jigéen ñi ndax lañ leen di dimbale parce que buñ dimbale xale yi gën a yomb moo nga dimbale seen yaay yaay seen papa yi xëy na mais yaay jàpp naa ñoo gën a yomb dimbale parce que Sénégal ñaari loxo la su fekkee ni benn loxo bi mooy góor ñi ci jàpp nañ ni 62 pour cent wala au moins 55 pour cent ay ay jigéen lañ su jigéen ñi ñëpp toogee ci kër yi rek defuñu dara amuñu moyen góor ñi ko liggéey Sénégal ni mu ko doxee kon nag mënuñu bàyyi lépp nguur gi jël ci samay partenaire financier ak man ak li ma jotoon a denc ak yooyu au lieu ngeen di ko tabax ay immeuble ak yooyu di muy toog mu daal dañu xool ni koy joxe jigéen liggéey commencé nañ ko nag euh, joxe woon nañ ci woon daaw cinquante millions yoo xam ne ko distribué ay ay quelques groupements de femmes formé leen ñuy liggéey ba tey seen ñu ci bëri sax fay nañ weer bi am si ñoo xam ne jeexal nañ seen remboursement ci yoo xam ne amul ouverture de compte amul frais frais

consacré ci njàng njàng la ak la santé moo ko pare essentiel loolu ci lañ nekk bis bu ce ah di ñaan yàlla jëm réew si ñu gën ci mën a am ay ndimbal pour gën ko mën a continuer ndax ñu ci ñu ci ñu ciy sant yàlla na jaar mais objectif bi Sénégal war a viser mooy la prospérité parce que dafa raw lépp prospérité nag mooy ñun li dund bis bu nekk soo xoolee man murid laa moom wax dëgg yàlla dafa gëm prospérité ak li boo da ngay nit

mais la population est maintenant de parce que réfléchir sur le modèle de la prospérité c'est qu'il faut que les retombées avec de petites populations, et prendre en compte les véritables problèmes de la société s'éduquer manger se soigner aller à l'école correctement vivre en paix et en concorde avec sa société mais aussi avoir du travail dans nous, c'est plus que la croissance. Que la croissance peut être mal portée, peut être portée par, des industries étrangères, peut être portée par des choses comme la terre, la terre de ramener. Si on regarde très bien Total et tout ça, c'est pas mauvais, il faut les avoir. Mais l'État doit réfléchir, nous devons réfléchir à transformer cette croissance en une prospérité. L'émergence doit arriver à la prospérité, mais l'État peut passer par l'émergence. Loolu moo mot aidé nous ne mais bi def ci nit jàppale bi ñu jàng ci li ñu am baax na mais à l' échelle nationale looy gën a jàppale bi gën a di gën a gis ni que ndóol bi ak ñi koy soxla ñu yokk loolu nag tax ñu ñu toog xalaat daal ne ah lii nag suñ ko bëggee xeex dëgg suñ buggee xeex ndóol bi ñu ko xeex ñàkk njàng mi ci yoon bu xeex problème de santé yi wala boo xeex sax c'est trop fort mais participer ci indi ci sa contribution parce que nit ñaa ngi ciy mais xëy na laaj nañ ñëpp dugal ci sa xol mel

ak plus de deux à 250 cent cinquante personnels vacataires yoo xam ne ñu ngi fi liggéey loolu moo doon contribution bi nga xam ne man jàpp naa ne fonction publique baax na mais il faut ñu ñu won exemple jeunesse yi mais liggéey nekkul rek ci fonction publique moo tax bi ma amee trente ans nga xam ne liggéey naa ci fonction publique peut-être ba trente ans dama ne ah man daal métti na sama parents yi hésité wu nañu baax sama yaay bu xam damay démissionné ci fonction publique nekk professeur de rang A moom mën ko wuñu am na ko non

ah léegi nag bi ñu doxalee loolu lépp ba egsi ci fi ñu toll tey en 2014 ñu ne ah su ma delloo fee ca Thiès Daaru Salaam Ersan dem ay Ngumsaan ay Pégu ay Gengineew ay Koupentoum dëkk yi may dox yëpp naan sama mbokk yu baax ñoo nekk damay gis ni des na lu bari lu ñu ah ca loolu it ay entreprises humanitaires comme lu ko réglé donc ma ne dans ce cas il faut ma dugg ci politique indi ci sama xel indi ci sama choix. et pour que c'est ma contribution et pourquoi pas un jour le mandat de, diriger le pays avec, n'est-ce pas, euh, les hommes de valeur que nous avons trouver ensemble. lors de 2014 mouvement deux mois la def bi commenté, monté dans le local il tey un ay Il a Thiès sama mouvement n'y a pas deux conseils la mais il y a plusieurs autres conseils qui y a ñoo démissionné qui ànd ak beaucoup de cadres yoo xam ñoom bu ñoo def politique wala ñemuñ ko seen xel xalaatuñu woon ne nit ñu nekk ci société bi di ko doxal yàlla ko ci may jàmm mu am ay këram Dakar bi noppalu ak lépp bàyyi lépp dugg ci coono politique loolu bari mu nekkoon xalaat mais loolu c'est une façon pour man mu wax Sénégalais yépp ñi nga xam ne yàlla may leen xam-xam ñi may leen am-am ñi may leen mën-mën bu ñu bàyyi politique bi kese ak ñi nga xam ni ñenn ci ñoom bu ma sax ñëpp parce que am ñoo xam ne aussi wax dëgg yàlla c'est des ñoom ñoo bëgg def politique bi.

xam nga mouvement bu judd 2014 te nekk mouvement parce que mouvement bi dañ ko circonscrire woon parce que man dama nekk koo xam ne yàkkamtiwuma ci sama progression loo gis y en a qui font beaucoup de bruit moi je fais un travail souterrain extrêmement bien cadré je crois que nit même nit soo juddoo sax da nga war a yem d'abord ci sa dëkk ci sa kër biir kër après nga yaatal sa buntu kër après nga yaatal sa koñ yaatal sa quartier ma ci liggéey boobu laa donc bi ma njëkkee kii bien que le Sénégal ku nekk mën naa faa woote parce que ku am dix mille étudiants formés yoo xam ne jàmm rek nga amoon ñoom ñoo bu ñu nekk tey ay pères de famille am plus de vingt mille familles yoo xam ne indi nañ seen doom xam la nga juddoo Thiès yaroo ngeen di neew jaar Gossas ñëw Dakar Ndiaye ci xam fi ay nit wala gën a légitime pour nga woote am mais on a préféré retourner à la base. C'est que Thiès et Sandal se remplissent, mais m'empêche fait de Objectif du don, politique ça, baaxul nga naan lii mooy sama li ma Objectif bi ci ëpp am la confiance des Sénégalais am la confiance de la population d'abord de Thiès et de Dakar et de tout le Sénégal pour d'abord nous mën am les différentes mairies ndimbalu askan bi dëgg-dëgg fa la nekk parce que foofu soo bëggee dimbali askan dëgg-dëgg ci mairie yi la gën a am solo parce que pour man gën naa ni l'État a son rôle régalien à jouer mais les mairies avec la décentralisation ñoo yore vraiment la question affaire programmatique te man gis naa ni maire yi liggéeyuñu amuñu imagination amuñu innovation amuñu capacité monter ay projets de société une capacité monter des projets bancaires, ni des projets présentables pour lever des fonds et apporter ça au niveau du développement de nos local. Parce que les villes, c'est comme des petites entreprises. C'est pas, pas des petites, c'est des grandes entreprises. En réalité, une ville, il faut la considérer comme une entité qui doit, qui doit être euh, comme une société, comme une entreprise qui doit progresser, qui doit avancer, qui doit lever des fonds, qui doit avoir un plan stratégique de développement, qui doit avoir donc, un, euh, plan euh, euh, cohérent d'appui à la société. Les gens ne font que du clientélisme et puis ils commencent à eux-mêmes que la plupart d'entre eux sont ils n'ont ni CV, ni parcours social, ni rien du tout. Et c'est vraiment dégradant. Donc moi je lutte à ce que dans les différentes mairies du Sénégal, que nous puissions installer avec notre mouvement des hommes de valeur compétents, capables d'endosser le développement territorial et ensuite progresser vers n'est-ce pas, des niveaux, des étatiques euh, dans euh, en tout cas, notre objectif est clair. Nous allons appuyer, notre naissance à coïncider la naissance de notre mouvement à coïncider avec un président élu avec 65%, qui est jeune, qui a de la vision autour d'un plan sénégalais d'argent. Nous avons décidé de ne pas entrer dans ses activités politiques, politiciennes, mais nous avons décidé de l'appuyer pour qu'il termine convenablement son mandat de 2019, probablement jusqu'à 2024. D'ici là, nous, c'est la conquête des mairies et des différentes collectivités qui nous intéressent, et, certainement euh, conquérir le pouvoir après lui. Nous pensons que c'est fort probable, c'est fort possible, et nous pensons qu'avec l'aide des Sénégalais et la confiance des uns et des autres, autour d'une large coalition d'hommes de valeur, nous pourrons euh, changer le Sénégal et campagne disons j'ai continué mon travail je marque peu d'importance à la composition des listes parce que ce qui m'importe actuellement c'est de faire en sorte que le président Macky Sall et son gouvernement puissent avoir les moyens de maintenir le Sénégal dans la rampe du développement et de la croissance et l'amener à l'émergence j'ai déjà dit que il est imprudent, voire même hasardeux, de rentrer dans une dualité ou un bicéphalisme au niveau, au sommet de l'État, en créant une législature, une, assemblée nationale à coloration d'opposition, qui d'affaiblir l'action du président en affaiblissant au niveau de l'hémicycle. Je ne crois pas que c'est la bonne option. Donc, moi, ma campagne est basée sur une communication pour convaincre les Sénégalais à, donner encore une majorité au président de la République. Pourquoi Parce que, je l'ai expliqué, c'est pour maintenir cette ample de croissance. Quoi qu'on puisse dire, il y a une croissance de 7%, quoi qu'on puisse dire, les autoroutes se construisent, quoi qu'on puisse dire, l'école stabilise un peu, on peut dire. Il y a moins de grèves qu'il y a quand même en 2012-2013. Aujourd'hui, l'année scolaire à l'université, il y a mon fils qui est là-bas, euh, qui fait mathématiques, je demande ils sont en train de googler le, le second semestre. Jamais, depuis longtemps, moi, j'ai pas mis ça. On parle de bourses non payées, mais bon, c'est des incidents qui c'est des bourses qui ont été généralisées. Et le ministre l'a expliqué l'autre jour. je ne suis pas en train de défendre le bilan. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la question nébuleuse du, du pétrole, la question, beaucoup d'autres choses sur lesquelles je les invite c'est parce que j'ai répondu à quelqu'un qui m'a interpellé sur pourquoi j'appuie le, pétard alors qu'ils sont en train de faire des délits. J'ai dit non mais écoutez, les gens parlent d'une chose, j'ai entendu deux débats. Le débat du pétrole et le débat, euh, oui, de la question parentale. Pour le pétrole, j'ai dit, mais écoutez, moi, il faut qu'on m'amène, je suis scientifique, je suis mathématicien, je veux qu'on me donne des preuves palpables, ou qu'on me montre que ce n'est pas aussi logique les contrats. Parce que effectivement, le modèle des contrats signés par les pays pauvres pour exploiter le pétrole est un modèle qui n'est pas bien. Et je milite pour que nous puissions réviser la manière dont les contrats sont signés. Mais le Sénégal ne peut pas échapper à lui tout seul à la marche du monde. C'est-à-dire que ce qui se fait au Congo, au Gabon, au Sierra Leone, dans les pays du Golfe, et partout la première fois qu'ils ont trouvé le pétrole et qu'ils n'ont ni argent ni savoir, mais c'est contrôlé par les puissances et les mégalopoles capitalistes dans le monde. Deux choix pour s'imposer. Ne pas exploiter le pétrole et rester dans notre pauvreté ancienne, ou l'exploiter, démarrer l'exploitation avec peut-être pas des choses qui ne nous avancent pas, c'est comme parmi nous tous, nous avons tous démarré, vous, journalistes, nous-mêmes, enseignants. Bon, mon premier salaire d'enseignant, c'était combien C'était 125 000 ou 150 000. Professeur des lycées, vous imaginez, Dans son temps. Mais il faut démarrer avec une chose. Et après, tu prendras des décisions majeures dans, dans ton parcours pour rompre avec ces histoires. Mais il faut d'abord commencer. Donc, à mon avis, les premiers puits, l'important est que nos homologues qui ont signé, est-ce qu'ils ont signé dans les mêmes conditions si c'est les mêmes conditions. Oui, c'est pas bien, mais on ne peut pas échapper à la règle imposée par le monde. L'important maintenant est que ces premiers puits qu'on a exploités, stop. On gère ces premiers puits, on gère bien les retombées de ces premiers puits, on utilise les, retombées financières de ces premiers puits pour, forer nous-mêmes, ou en tout cas imposer, amener l'argent pour négocier directement avec ce Dans ce cas, nous aurons des contrats plus adaptés. C'est l'explication que j'ai. Jusqu'à ce qu'on nous montre vraiment des faux et des antifaux utilisés de façon avérée dans cette dans dynamisme pour que puisse, je puisse désormais décider que si quelqu'un vient pour œuvrer contre les intérêts naturellement, je m'opposerai à toute personne qui le fait. C'est pour ça que j'ai dit tantôt à ton collègue que je ne suis ni de près ni de loin mêlé à, la gestion du Sénégal parce que je ne suis ni ministre, ni député, ni même membre de la paix, ni membre de, parti politique. Donc vraiment, c'est très clair, ça j'ai voulu l'expliquer. Maintenant, les listes qui sont sorties, vraiment, je vous dis, je n'ai pas fait plutôt attention. Ce qui m'intéresse, que Boun Abdallah soit choisi, oui, c'est légitime, parce que le président a dit, vous savez, même les listes qui sont sorties, il y, a, eu beaucoup de querelles, même dans les autres partis, chacun tire sur l'autre. Le là a peut été très clairvoyant, je lui fais confiance, il a suffisamment beaucoup plus d'informations que nous autres les jours, il a les statistiques, il a les enquêtes nationales, il a l'éploi à la technique information euh, problème pour euh, ça montre qu'aujourd'hui il a confiance à son bilan parce qu'aujourd'hui, il a demandé au Sénégal Sénégalais de juger son bilan donc je trouve que c'est légitime et mon mon confiance au monde mon mon comme ñun mon nañu qui ci élection législative

oui le conseil est bien mais qui fait le Sénégal rek moo leen tax je man su au conseil soxlawu ma sama salaire mais ni ma fa yóbbu la Sénégal xel président perte yóbbu ci lu chambre yi conseil d'administration administration il conseil d'administration. la du monde trois trois réunion quatre par année mais à mon conseil

obligé les aussi ñu transfert de technologie boo xam ne dañ ko war a au au formateur ci école yone ay ingénieurs yo xam ne dañuy wara ah, dañu bokk ak ñun ñu former suñu xalé parce que ñun rek ñu suñu am école mën na ñu am des compétences il faut que les les les les sociétés financer la laboratoire ci université yi financer indi ay formateurs jël leen en charge pour ñu former oublier les postes de stage au niveau des au, niveau des, des, des de 4 pour que nit ñi transfert de technologie et de compétences dañ ko indi

Euh, population yi gën a sori li ñu xool nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey Sénégal pour vous démarquer un peu du comment ngeen di def seen liggéey bu baax lañ ñaanal di ñaan aussi Sénégal jàmm gën fi sax di ñaan Sénégal euh, prospérité bi nga xam ne moom laay woote ak euh, mag ñu baax ñëpp di ko woote mu tuuru fii ba vraiment lépp li nga xam ni amoon na fi ci lekk naar faju tawat yépp faj ko ba pare Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne ñoo gën a kawe parce que war nañ ko mën a am léegi suñu jàng may nañu ko suñu suuf si li fi amul woon nga xam ne yenn pays amuñu ko ñu ngi koy am taw bi nawet bi encore dugg si yàlla nañu taw naaj moo xam ne ñu bi pour xeex lépp rek pour xeex kii bi ñaan Sénégal population bi aussi état bi mu jàppale ko bi euh, agriculteurs yi ndax ñu am financement yi leen permettre ñu mën a mën a béy loolu lépp daal bokk na ci li ñaan di sant yàlla di gërëm yàlla di remercier sama militant remercier waa Sénégal